waa وما يسطرون xam naa dañuy woo sëñ Mahmadan Dieng moom itam mu ñëw joxe discours am léegi incha allah waaw sëñ di jàmbaar lool ci liggéey bi bari ci ay taxawaay ci wàllu communication muy wax ci turu C3S. asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, dañuy wax ne. asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu waa salle bi yëpp di jiital ci nuyoo bi euh, le représentant du khalife général des Mourides euh, Serigne Mountakha Pakala teg ci loxo nuyoo boobu mu jàllale ko ci képp koo xam ne kilifa la bu teew ci ci jotaay bi euh, nuyu itam euh, ñi nga xam ne ñooy association islamique yi nga xam ne ñoo teew ak yeneen kër kilifa diine yépp ak fu nu mën a bàyyeekoo ñu ngi leen di sant bu baax ci teewaay bi nuyu itam ñi nga xam ne ñooy jàngalekati alxuraan yi teew ci jotaay bi seen yëfa ñu ngi leen di sant bu baax di ko bokk ak ñoom di nuyu itam ak a tatagal ak a encouragé sunu yi nga xam ne ñoo doon jongante beral ab nuyoo itam ki nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñooy délégation parrain bi ak itam ñi nga xam ne ñooy délégation invité d'honneur bi waaye itam ñi nga xam ne ñooy euh, les représentants euh, étatiques euh, à travers mbay Mbaye Ndiaye ministre d'État ñu ngi lay nuyu di lay ñaan itam nga jàllale sunu nuyoo ci son excellence monsieur le président de la république Macky Sall nuyu également ñi nga xam ne ñooy opérateur économique yi di suñu mbokk ci waar wi waaye beral ab nuyoo bu baax a baax euh, les distingués invité maa ngi fiy gis sànq sëriñ Abdoulaye Dia euh, sëriñ mbay juuf ja ak ñeneen ak ñeneen du may bañ a lim di bañ a matal waaye en tout cas ñu ngi beral ab nio képp koo xam ne mi ngi teew ak ànd ak ñoon jotaay bi. di njëkkante rek di leen sant kon bu baax a baax ci teewaay bi sañ Mbacke ndax xam na ne danoo nekk si weeru koor muy weer woo xam ne ñi sant faal xaj na génn ci dana yomb du leen yomb waaye itam pour ñenn ñi mu nekk tamit jour de repos. kon ku jaayante ba si fii rek eh, danga nga ñëw ngeen ànd kook ñun mënuñu kon lu rek rafetu loolu jotaay bi nag sëñ Mbàkke day jotaay boo xam ne eh, damay wax ne eh, liñ siy taxawal bëri ko ci mbartal la man noonu la yàgg di wax ndax alquran sunu borom moo ne moo koy sàmm moo ko wàccee te moo koy sàmm inaa nahnu nazalna zikra wa inaa lahu la xaafizuun kon dama naan bëri ko ci mbartaal la mun te teewul woon teewaay bu mel nii sax du tax du tere téere bi téere bi fa ko sunu borom nekk tegoon foofu lay foofu lay mas di nekk kon ñu ngi ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax ci loolu leneen li nag di rappeler bu baax a baax rek li waral jataay bi li waral liggéey bi li waral liggéey bi mooy comme ni ko ñëpp waxee C3S di kër goo xam ne dafay yëngu ci alxuraan bu ma ne yëngu ci alxuraan monsieur le ministre damay attirer sa bu baax baax ci loolu ndax ay kilifa ngeen yoo xam ne war ngeen euh, yëg bu baax a baax a baax liggéey boobu euh, bi muy yëngu ci alxuraan yore ay daara wala yor daara dem ba xam ne lii di mbind dafa bokkoon ci daara. waaye commencé naa commencé naa di di di di di manqué ci yenn daara yi moo tax mu taxawal lii ko gën a renforcer kon formation bi nga xam ne yittey état la c 3 ànd ko ak yéen kon di ca di ca di ca di ca liggéey liggéey bu am solo di encourager xale yi di leen tegal ay prix ngir nu gën a mën ja euh, takkaat seen laxasaay gën a mën a indiwaat mbind mi ci daara yi loolu objectif boobu moom mooy mooy li nga xam ne moo waral euh, moo waral concours bi ci lu gàtt rek. Euh, ñuy wax ne concours bi dana ko dañ ko jàppe ñun ñëpp ne service kon service public la ndax ku wax jamono ji nga xam ne moom lañ toll ñuy wax euh, li nga xam ne mooy tourisme religieux wala di wax itam affaire art ku ñëw ba gis ñii di bindee ministre euh, kon ministère de l'éducation nationale na xam ne ñun moom lañ fi teewal liggéey bi liggéeyam la waaye itam ministre de la ministère de la culture moo xam ne itam liggéey bi liggéeyam la waaye itam ki nga xam ne moo lépp luy tourisme ak yu mel noonu xam ne liggéey bi liggéeyam la kon daal état nekkul woote bi nag nekkul na dañuy xaar benn ndimbal sañ Mbàkke ndax dafa xaw a dafa xaw a dafa xaw a méttee dafay waxal bu baax a baax waaye bëgg nañ itam ay orientation bëgg nañ itam nu nu accompagner bu baax a baax ci liggéey bi ngir euh, yenn moyens yi nga xam ne moom la disposé woo ñu gën cee mën a jaare ba gën a mën a yóbbu liggéey bi à travers le Sénégal ñu gën a mën a wane Sénégal liggéey bi nga xam ne moom la baaxoo def ci biir alxuraanul karim kon loolu message boo xam ne dañu woon tribune bu mel nii kilifa yu mel nii teewe ko danañ fexe ba loolu jàll li ci des nag xanaa sëñ Mbàkke ci lu gàtt rek mooy ñu sant képp koo xam ne membre C3S nga boo xam ne jàpp nga ci liggéey bi depuis ba mu commencé ba léegi ba waral lu yàññi lii lu taaru nga xam ne moom lañ présenté tey ci mbooloo mi ñëpp mën koo gis kon ñu ngi sant képp koo xam ne élément C3S nga ki ci gën a euh, ki ci gën a féete kaw ba man mi nga xam ne maa ci gën a suufee ñu ngi sant ñëpp bàyyiwun kenn waaye nag ñu am euh, ab ab ab ab xalaat rek ci ñi nga xam ne sëñ Mbàkke danoo bokkoon ak ñun liggéey bi te yàlla def diggante daaw nga ren ñu wàññeeku suñu borom jël leen kon ñu ngi ñaan si jataay bu màgg bu rafet bi ngeen ñaanal ñooñu bokkoon si ñun suñu borom gën leen a yokk yërmande xaral leen àjjana fi daw si bi barakatu rasulillahi alayhi salatu wasalaam di félicité bu si concours bi ñëpp waaye en particulier ñi nga xam ne ñooy finaliste di ñaan jàmm ñu fi teew ñu ñaan jàmm am ci Sénégal ndax yaakaar naa ne jataay bi bu jàmm amul woon lii du mën a nekk kon ñu ngi leen di taataan suñu ay loxo di ñaan ngeen ñëpp ngeen ñaanal Sénégal ñu sax ci jàmm ba lépp loo xam ne euh, dañ koy yittewoo lépp ñu mën koo defee ñu kawe suñu jortu di wax ne itam si perspective concours bi critère bi ngeen gis sëñ Bakki ñëw na si sànq bëgg nañ ba di présenter kaamil boo xam ne fu ñu ko tuddee nan lii kaamilu alxuraan bii kat kaamilu Sénégal la comme ni muy feneen ak feneen loolu nag ci lii la commencé yoo xam ne commencé nañ ko bind di ko tasaaree fépp ci Sénégal di ñaan ngeen ñaanal ñu ba liñ ci mébét lépp ñu amee ko ñu amee ko ñu kawe sunu njortu bi barakati rasulillahi alayhi salatu wasalaam ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf jërëjëf sëñ Mahmadan Dieng ñu tàcc ko bu baax moo doon joxe kàddu C3S euh, di euh, sukkandikukaay gi nga xam ne ci la mbokk yi sukkandiku ba mën a def liggéey bu rafet bi sëñ Mbàkke Sourang kon nag ni ñuy def rek mooy jaajëfal ko waaye daal di njëkkanteek waxtu wi hmm. dem directement ci comité scientifique euh, بنعمة ربك بمجنون